seen ñaxtu boobee nag ñu ko fas yéene amal euh, ci foo ñu naan place de la nation la ñaaw lu mooy dogal yi tukkee euh, ci conseil constitutionnel Cheikh Diop la ñu fa fas yéene fekk jamono ci diwaanu Sébikotane dafa am mënees naa wax ne njombe la ndax neenu benn daara la muy daara ju diggu doom joo xam ne bi nu ko daloo léegi mi ngi yées ñeenti at lañ ci def ci koppar daanaka jege na juróom benn téeméer ci million lu jege juróom benn téeméer yi gone jëlee nañ leen ca daara ja gis ngeen ko nataal boobu mooy moom daara joojee euh, mabbu la gën a jege leneen ndax tabax ma euh, gaaw naa màggat ba fi mu ne nii ñene ca daara ja am nañu ak euh, njàqare dawalkatu woto yu mag ñu gën leen xam ci camionneur nekk fa fay ca diwaanu Ziguinchor ñoom nag ña ngay laaj seen ak ak yelleef bokk na ci la ko waral ndaamaraas jooju nga xam ne dañu koy bàyyee ca diwaanu Ziguinchor ne ñu dañoo war a am sañ-sañ bokk ci ñu koy sëf di ko indi ndax dañ cee gis seen bopp ci fàttali nguur ak Sénégal dafa jëloon dogal ci atum 2018 ba seen ab liggéey bëri ca lu ni mel wàññeeku lu jëm ci wàllum caada ak biennale Dakar mu mel ni artiste bi di Massaer Seck tey nag moo ibbil ay buntam Ibou Diouf ci exposition boobu mu amal euh, mi ngi ko amal ci bayal bu nekk foofee euh, ca ñaari tali la ca jublu rek mooy fexe ba euh, gën a jege ak askan wi bu ko defee liggéeyam ñu gën koo xam lu jëm ci wàllum tàggat yaram Rwanda di dalal Sénégal tey jii ci ngoon ci stade Maître Abdoulaye Wade mu soxal éliminatoire CAN 2023 bi mooy ñaareelu sortie bu cas bu Sadio Mané ak ki ñoñam Casa Sport ca jamono moom jël na raaya champion du Sénégal lu wàllu bu Ligue 1 mu mel ni nag équipe bu Sigicoor boobu bi mooy ñaareelu yoon mu koy jël fukki at gannaaw euh, ndamam lu jëkk lu ni mel li ceeni kaay yaag Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce ñu rafetloo ci seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dama koy doore ak euh, nanu ko junjee woon muy conférence de presse euh, bi nga xam ne waa Yewwi Askan Wi ñu ngi koy amal jamono ji euh, loolu nag kilifa yi boobile coalition ñoo amal lu ni mel la ñuy fësal rek mooy li ñu doon laam-laamee ne ñoom ne ñu ëllëg yemook àllarba juróom-ñetti fan ci weeru juin ñu wàcc doxantu ba place de la nation daal di ñaxtu la metti la lenn lu dul dogal yi nga xam ne tukkee na euh, ci conseil constitutionnel te mu laal leen ak itam législative yi ak seen liste Cheikh Diop dañu fa yebal bu fekkee ni yemb na Cheikh Diop. yegg seegul xam naa ci kanam eh, incha allah eh, fii xibaar di jeex amaana wala ci yeneen jataayu xibaar eh, moom Cheikh Diop dina ci dellu siwaat ci mbir moomee Yewwi Askan Wi ba tey coowa nga ca biir coalition ba ndax dafa am ñenn ñu ca bokk joxañ nañ baaraam tuuma ña ko jiite ku ci mel ni Déthié Fall Ousmane Sonko wala Khalifa Sall ñoom daal la ñuy ŋàññi mooy yorin ba nee ñu itam taxul benn yoon ñu génn ci kujje gi ña nga fa ña itam ci coalition bi ci noonee dañuy teewlu njiitalu Djibril Diop euh, euh, kaddu yi euh, ki ko taataan di Abdoulaye Anne bokk ci ñi ñu toogal ca banlieue bu Ndakaaru liste bi ñett ñoo ko séddoo muy Pastef muy PUR ak taxaw ba pare ñoom it mu am leneen loo xam ne dañ ko def ñu signé benn alliance stratégique ak le parti démocratique sénégalais sénégalaise alliance boo xam ne kenn comprendre gis boo waree ay nit di nëbbatu nit ñi di jaar fii gauche jaar droite far yàlla wan leen seeni wan leen ni mën ngeen a def seeni pexe def lépp waaye man maay maay dogal. ñu dem ba def ko benn petit groupe minuscule bu ndaw group boobu nag ñoo bëgg a jël yeewi askan bi yaakaar ni ñoom ñoo ko moom moo tax may wax ni ñun ñi toog fii nous sommes dans yeewi askan wi ci ren bokk. te génn ñu si ñu ngi si tey ba sàmba di si xeeñ mais dinañ dénoncer ñoom lu ñu def ñàkk associé ñi fa nekk moo waral nag coow yi yëpp ñëw si biir Yewwi Askan Wi parce que dañu doon jéem a def miicoo ak mbaaloo ba coow fekk leen ca léegi ku toog bëgg a wax dëgg gi am si biir Yewwi ndax Yewwi Askan bi ñu ñëw jógoon ne ñi fi nekk baaxuñu ni ñuy doxalee Sénégal baaxul parce que dañ fi nekk di séddoo dañu fi nekk di coup mais boo demee biir Yewwi Askan bi ñetti ñi ñoo fa nekk def leen neex ku seeni morom ba pare yaakaar leen ci génn moo tax depuis boobu ba léegi ñemewuñu woote conférence des leaders pour dajeeg leaders yi leaders yëpp ñu toog parce que xam nañ li ñu def loolu ñu def nag du ñu nangu ku ci dugal di si dugal suñuy militant ak suñuy militant naan nañ leen dem marche xeexi wala nañ leen dem déloger loolu c'est irresponsable dans un pays un état de droit waaw ñu des ba tey ci législative yi ñu dëkkmal ak kàddu yi aji Mbergane Kanouté moom nag mi ngi bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar bokk na ca la mu ne rek daal euh, mi ngi sàkku ne ci ndaw yi nga la ñu bañ a bokk ci euh, manifestation yi nga xam ne kujje gi euh, moom la woote lu ci mën a am dañu koy teewlu ndax dafa jëna woon ak taskatu xibaar yi ci diwaanu saalum ci teewaayu Pape mbay Diaw ak Faly Gueye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 aywa euh, bu ñu jógee ci euh, euh, législative yeeg politique bi ñu wax itam ci leneen muy diwaanu sebi Sébikotane lu day waar mu faam daara jënu fa tabax nee ñu lu yees ñeent ñeenti at bi nu ko daloog léegi màggat na ba xubbi daas moo ne day liñ ci defoon ci million jege na juróom-benni téeméer gune itam seen lim jege na juróom-benni téeméer waaye dañoo mujj génne leen yóbbu leen feneen loolee indi na njàqare ca diwaan ba rawatina ña daara ya Abdoulaye Cissé ak Mbaye Diouf lañ ci àndal. Sébikotane ci ndakaaru xalam demoon na bay neex buum yadog ndax collège bi ñu leen mayoon 2018 ñeenti at lañu ci takk miir ya di màbb bâtiment bi nar a daanu ci kaw élèves yi mur ba ñu doon taaralee école bi sax moo njëkk a xàppatiku balaa jee di am principal bi na jot nañu ndigal tëj école bi génnee juróomi téeméeri élèves ak juróom fukk ak ñaar yi fiy dalee waaw kilifa yi bi ñu gisee ne école bi euh, fissure yi daal bëri na te wóorul ah, ñoom ñu demandé ma ñu ma tëj école bi mais bàyyiwul ma noonu quand même parce que utal nañ ma benn site boo xam ne AGETIP moom moo koy fay beneen site bi bi ñu am nag boobu ñun ñoo ko doon fayal suñu bopp bon pas école bi mais communauté bi. la mairie itam jàppalu ñu. ku wër école bi sa xol jeex ndax bu ñu la nee lii ci ñeenti at la toll bi ñu ko tabaxeek léegi da ngay sax faf yéemu toxal nag ci tàng-tàng bi juróomi téeméeri élève ak juróom fukk ak ñaar du lu yomb te lu diis la ci administration école bi. waaw jafe na jafe na jafe na parce que ñaari fan yëpp man ak parents d'élèves yi ñu ngi may jàppale bon professeurs yi surveillants yi tamit ñu ngi si bon ñoo ma jàppale pour évacuation bi yombul nag bon mais Dieu merci Dieu merci on a pu évacuer yóbbu nañ table banyu donc les classes sont fonctionnelles. parents d'élèves yi moom jommi jommeet ak rëccu bu ñu am ndax jotuñoo sax bàkkoo seen CM bi war fee jóge ci anam yii. xool bu naqari trop trop vraiment parce que vraiment dañ leen tasaare fi mu ne mën naa ne dañ leen a tasaare. parce que ñii ñu ngi fii troisième yi quatrième yi ñu nga fële cinquième yi ainsi de suite fu moom daal fu ñu am ruq bu leen mën a dugal dugal nañ leen fa wut nañu fi ñaari site yoo xam ne yi fu ñu leen dugal la malgré que comme ni nga waxee école bi vraiment ak matériel bi ci nekk gis nga ko gis nga chariot les chariots scientifiques les ordinateurs et tout ñu ngi fi mais mënatuñ ko utiliser parce que mënuloo ko mënuloo ko jële fi mënoo ko yóbbu feneen ci site yi li nga ko mën a def rek mooy jël ko garde ko denc ko loolu vraiment lu ñu metti la lu ñu metti la lu ñu sañoon suñuy doom di ko jariñoo xëy na li des ci at mi sax bareetul waaye administration bi moom ma nga tàmbalee séentu déwén bu ekool di ubbi. di si déwén nag ñu yaakaar ne autorité yi nañ jog si jël ay mesures définitives durables durable loo xam ne peut-être nañu utal sit boo xam ne nañ fa mën a def suñu classe yëpp def si euh, service administratif yëpp. en attendant en attendant nag ñuy construire beneen école parce que loolu lañu ñu loolu la ñu promettre bu ñu amee benn site bu baax rek ñoom AGETIP ñoom leen intervenir pour construire donc loolu foofu lañ tollagum si si si affaire AGETIP moom parents d'élèves yi bëgguñoo dégg sax lu jëm ci moom donte moo fi sës. ndax AGETIP won na leen ñàkk leen a fullaal ba site yi nga xam ne sax fa la ñu recaser xale yi nanguwul a fay yépp il peut pas y deux poids deux mesures dans bi benn école la. bu ñu bëggee ne site engagé di ko fay mais premier site bi duñu ko duñu ko kooku ñun ça va poser que tant que parents d'élèves on l'avait fait pour que nos enfants ne sortent pas dans la rue. fii daal ku bëgg l'éducation nationale maître d'ouvrage délégué bii di AGETIP te mu santoon ko liggéey bi mu jeex ku ko entreprise bi di Kuntafal entreprise ñoo bokk àtte ci sànq juróomi téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne agence française de développement moo ko financé te waa Sébikotaan astafurla waa Sénégal nar koo fay ci loo xam ne France lay doon. Abdoulaye Cissé beneen euh, taax moo xam ne itam buntu jógul mën naa màbbu muy euh, taax moom nga xam ne mooy centre de santé ba nekk ca jofior ñu ne euh, moom it bërëb daanaka daal màggat na te moo ne boo ñu xoolee bërëb fajukaay la boo xam ne juróomi commune di ay gox yu fasantikoo nekk ci arrondissement bu Fimela askan wa fa la ñuy ñëw bu nu tawatee Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey la ñu fekk ca diwaanu Sine bâtiment bi ngeen di gis mu màgget tey itam yàqu moom mooy centre de santé bu Diofior lii nag ñu ni ab danger la moo tax nag ñu jàpp ne ñu defaraat ko wala sax ñu tabax beneen lu war la fi mu ne dañ ko war a def ci ni mu gën a gaawee. batiment bi wóoratul daanu à n'importe quel moment te ay nit ñoo ciy liggéey donc ñoom ñi ngi en danger malade yi ñëw tamit ñi ngi en danger toilette ci baaxul léegi ñu doon ñaan nag euh, bonne volonté yi di ñaan état bi ñu def seen kéemtalaay kattan pour. génne hôpital Diofior situation bi dañ ko war a tabaxaat. image yi ngeen gis wane na ne centre de santé euh, Diofior yàqu na yàqu boo xamante ne wóoratul pour ñu koy fréquenter malade yaa ngi ci danger personnel médical bi fi nekk ñu ngi ci danger ñuy interpeller la gouvernement du Sénégal pour mu dugal ci loxoom. li ñu bëgg nag mooy nañ ñu tabaxal un hôpital de niveau un. centre de santé bu Diofior nag ñi ko tabax ci ati 1990 nee ñu nag am na service yu am solo yoo xam ne amu fa looloo tax nag ñu jàpp ne pouvoir compétent yi war nañoo gaaw corriger mbir mu ni mel. ñoo ngi ni hôpital boo xam ne. amul surtout structure d'accueil amul médecin yu doy amul bloc opératoire mënuñu am hôpital boo xam ne hôpital bu mucc ay hôpital boo xam ne dina mën a accueillir toutes les îles du Saloum et jusqu'à jusqu'à l'axe Ndiosmone. tamoon day nee ñu ay junni junni nit ñoom ñoo ñëw foofu ngir di fa faju ndaxte centre de santé bu Diofior nag juróomi commune yi nekkee ci arrondissement bu Fimela yépp ci kawam la ñu bootu. ñuy interpeller la gouvernement du Sénégal pour mu dugal ci loxoom Diofior dafa polariser ay communes yu bari. ab groupe électrogène itam. ñi di ndaw ñi nekkee ci union pour le développement de Diofior bëgg nañu ñu indi ko ci centre de santé bu ni mel ndaxte nee ñu coupure courant yi dafa bëri te léeg-léeg day yàqu lu bëri ci liggéey bi. structure de santé il n'y a pas de matériel il n'y a pas et pire encore il Aminata Goudiaby ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram xamale leen ak ingénieur boo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu euh, biologie médicale Adama Faye lay wuyo moom nag daal euh, dafa fent euh, defar appareil boo xam ne daal am na solo lool ci wàllu wér yaram rawatina nag bu fekkee ne dañ lay laaj ngay def ay analyse mu jëm ci wàllum deret moom ingénieur bi nee na bëgg fas yéene wut yam fii bëgg na ko gën a ñoŋal ba mu gën a xarañ gën a mucc ay Fatou Kiné Deme ñu àndal ak Thierno Laurent mais di ñu gën a xamle ak moom muy ab jumtukaay bu xarala buy tax nag ñu mën a natt ak xayma deret nag ni muy wàccee maanaam gaawaay bi ci wàllu analyse. wàcc bi nag dafa am norme warul gaaw lool bu gaawee dafay wane ne. Eh, eh, eh, am nit ki am na feebar loolu moo tax ci bilan yi nga xam ne moom la médecin yi di laaj maladie dañ ci boole toujours analyse boobu. ndax ah, appareil bi ma inventé tube bi maanaam deret bi doo ko laal lépp si automatique. waaw appareil bi daf koy daf koy mélanger bu ko mélanger bu pare daf koy liir aussi. je vous présente l'appareil Euh, donc qui est un jumtukaay bi ki ko fent Adama Faye ingénieur ci wàllu biologie muy lu am solo ndax dafay tax rek ñi yëngu ci wàllu analyse nag euh, deret mën a euh, tàqalikook anam bi ñu koy defee te mu mën leen a indil gàllankoor mën a yeexal itamit seenub liggéey. Euh, méthode boobu mooy da ngay jël deret bi. Euh, euh, di koy manque wala nga koy yégal da ngay jël tube bi di koy ubbi donc loolu day tax euh, maanaam ki nga xam ne day liggéey mën na ci sax am ay ay ay loraange. jàpp nañ ni bii jumtukaay gën naa yemb gën naa gaaw waaye tamit mën na leen dimbali bu baax a baax rawatina ak bu ñu ko connecté ci wifi nee nañ loolu sax dafay tax nag données yi ñu gën koo mën a denc. infrarouge par wifi maanaam. Euh, dañ koy commander par par wifi maanaam da ngay jël appareil bi nga teg ko ci laboratoire bi dem ci sa bureau à 200 mètres ou 500 mètres nga yor sa ordinateur ngay liggéey ci ci ci appareil bi. Adama Faye fas yéenewul yem fii gannaaw euh, fanweeri at ak juróom yu mu liggéey ci kër docteur yi tey mu ala traité mu ngay wéyal nag ab njàngam ca université Cheikh Anta Ndakaaru ngir nag jot ci ab master dermatologie biologique. appareil bi am na ay yu bëri yoo xam ne des na euh, yu ma ci war a war a gëstu daal. doole bii jumtukaay lii mu fent nag tax na ba mu am ñaari médaille muy or ak xaalis mu amee ko nag ci salon international bii ñu jagleel wàllu fent yi ñu doon def ca Genève ci atum 2021 ak beneen salon bu amoon ci Abidjan ci atum 2022 ñaari salon yooyu nag mu teewaloon fa Sénégal Fatou ne dem ñu sant ko bu baax gërëm ko ni leen ko waxee mbokk mbokk yi ci bopp xibaar yi dawalkatu woto yu mag yi ñu gën leen a xam ci camionneur euh, nekk foofee ci diwaanu Ziguinchor ñoom danoo mer ba futu euh, bokk na ca lanu ne ñu dañ leen a xañ seen àq ak seen yelleef euh, ci misaal ne ñu ndaamaraas jooju ñuy bàyyee ca diwaanu Ziguinchor war nañ ko mën a dugal ci seen i woto indi ko te loolee nag mënta am ndax nguur gi dafa jëloon dogal ci atum 2018 loolu la ñu bëgg mu delluwaat ci gannaaw janoo ak taskatu xibaar yi Boubacar Diassi ak Lamine Mandia ñoo fa teewal télévision ox Futur Média xeexuñ ma Samba xeexuñu ma Demba liñ wax mooy dañoo am droit pour def transport terrestre nañ ñu bàyyi ñu def suñu suñu transport terrestre bato bi def transport maritim kaju lay chargé fii dem ñu wàcce ko ci camions yi biir port mu yóbbu ko ci conteneurs yi ñu amputé ko ci conteneur yi kon ñun itam nañ ñu bàyyi ñu chargé suñuy oto yóbbu ko dakaar amputé ko ci euh, conteneur yi Dakar ñu ba bi ci topp mooy ñu bañ a lëndëmal xeli nit ñi bañ di jaxase nit ñi bañ di wax loo xam ne dara amu ci moo di ne kaju bi dañ ko yóbbu Gambie c'est faux c'est faux c'est faux dara amu ci ñun ay responsable lañ yoo xam ne du ñu jël ka euh, chargé oto di ko yóbbu Gambie Gambie gi ñuy wax ñooñu ëpp problème parce que am na euh, am na opérateur yu ne fii yoo xam ne seen kaju bi ñu seen kaju bi ñu am Gambie Gaana lañ dem wuti ji fa conteneur ñëw indi ko Gambie ko fo yóbbu ko fa te ñun lii du du gan ci ñun ñu xamal leen nag 1994 lañ commencé de chargé kaju fii di ko yóbbu Saga à la fin la fi yoonu Gambie génn ñun lu état bëgg ñun loolu la ñu bëgg développement Casamance fii moo ñu tax a jóg. xeexuñ ma Samba xeexuñ ma Demba dañoo bëgg ñu libéré ñu comme ni ñu libéré bateau yi ñuy def transport wasalaam. aywa ñu wax itam ci leneen muy journée internationale di bëccëg gi àddina jagleel loolu ñu naan euh, sécurité alimentaire mu jëm ci wàllum euh, ñam yi ñu ne daal am ndaje mu am solo ñu ngi koy amal ci euh, lu jëm ci wàllum mbay mi ak nutrition ñu ne ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru la ñu koy amal nag muy exposition boo xam ne daal def nañ ci taxaw seetlu bu am solo ci wàllum mbay mi foofee ma nga am ci bibliothèque bu université Cheikh Anta mu mel ni ay kii kilifa yu USAID ak euh, gouvernement bu Sénégal ak secteur privé bi ak partenaires yi ñoom ñëpp daal euh, ña nga fa ci ndaje moomee ndaje mi nag dafa daje ak ni ma ko waxee sànq bëccëg gi àddina euh, leen màggal loolu ñu naan sécurité alimentaire mu di jëm ci wàllum dundu geek na muy doyee ñu wax ci leneen mbokk yi muy lëkkaloo bu am diggante Marsassoum ak dëkk bu ñu naan Anderlecht mu nga nekk foofee ca Belgique ñu ne sax nag def nañu i jéego ba daal lu toll ci fanweeri million ak juróom-ñeent euh, jox nañu ko euh, lebal ko ndaw yi ak soxna yi nekk foofee euh, ca Marsassoum ngir ñu gën a suqali seen koom bokk na ca lañu yëngu lu jëm ci wàllum jënd ak njaay lu jëm ci càmm geek napp geek mbay mi Bakary Konté ak Xaali Jàmme lañuy ñuy fekk ca bët saalumu réew mi communal bu développement bi nag dañ ko indi teg ko fii ci commune bu Marsassoum pour jigéen ñi ak ndaw yi fi nekk loolu nag pour ñu mën a am ay financement daal di mener seen i activité génératrice de revenu convention boobu aussi permettre ñu mobiliser 39 millions de francs CFA 39 millions yooyu la ñuy distribuer tey jox ko femme euh, femme de Marsassoum distribuer ko aux de Marsassoum également pour que ñu mun a financer pour que ñu mun seen projet yi au niveau de la commune. secteur bu ñu touché nag secteur yu bëri la touché nañ euh, euh, également petit commerce touché nañ également secteur agricole en tout cas touché nañ secteur yu bëri pêche aussi laal nañ ko donc laal nañ secteur d' yu bëri au niveau de la commune parce que lu ñu wax sànq mooy que Marsassoum euh, jël na beneen élan élan bu mu jël surtout que bu ñu comment bu ñu tabaxee pom bi ba pare te mettre ko en service ñun war nañ fexe pour am. bénéficié wu ci opportunité pont pont bi. partenariat commune bu Marsassoum ak Andarlak tax na ba Marsassoum daal di am nu ñuy mobiliser seen i ressources financières wante tamit ñu mettre un jour seen plan cadastral maanaam lotissement dëkk bi élaboré tamit benn plan de développement local Julien Milquet mooy adjoint au maire bu commune bu Andarlak. ce type de microfinancement de microprojet qui est un petit peu à la base de euh, notre. microfinancement yi mel ni ay microprojet euh, nekk na partenariat international boo xamante ne moom lañ def fii ci gox bi mu nekk ay plan d'action bu yoo xamante ne day autonomiser jigéen ñi lu gën a important nag ci partenariat bi moo pont bu bees bi ndaxte des désenclavé région bi yëpp am nañ ay projet ci wàllum cadastre am nañ tamit ay projet ci sport ak tamit former politiciens yi surtout conseil municipal bi ci futur bi sax am nañu yeneen perspective yoo xamante ne bëgg nañ ko def lu mel ni wér-gu-yaram qui s'ouvriront dans le futur comme la santé euh, ou d'autres xamle nañu di ne dinañ wéyal seen partenariat ci yeneen secteur yu mel ni secteur wér-gu-yaram jàngale ak sport Bakary Konté ñu sant la bu baax gërëm la wax itam ci euh, biennale bi Dakar moo mel ni nag tey artiste bi di ma Massaer Seck moo ibbil Ibou Diouf ak Pape ne mbay ay buntam ñu xool liggéey ba muy def liggéey ba nag yóbbu ko fenn fu dul euh, benn ci xàll bu nekk fee ci diwaanu ñaari tali la mu bëgg rek daal moom mooy euh, fexe ba li muy liggéey xeex ci lu jëm ci deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum caada ak li nu moom askan wi gën koo def seen moomeel boobilee liggéey Diouf lañ ci àndal ni ñu ko waxee ak Papa Sangone Mbaye bi moom dafa tànn bërëb bi nekk ci biir ñaari tali ngir fësal liggéeyam loole nag mu ne lu am solo la ndax dina tax nga jege askan woowe loolu tamit dina la may nga mën a wax ak ñoom jaarale ko ci la nataal. aar bi dafa nekk loo xamante ne euh, ñun si lañuy jaar pour jàllale suñuy message parce que comme mooy suñu liggéey. Euh, comme woykat bi ni muy jàllalee message yi si wayam ñun moom lañuy ñuy jàllalee suñu message à travers euh, laar sculpture bi ak peinture bi. thème yëpp laay faral di liggéey waaye biennale bi dama dama taamu benn thème benn thème bi nga xamante ne mooy lu jëm ci kaddu waa moo tax ma tuddee ko mot à maanaam kaddu bi nga xamante ne day jur ay loraange waaw ci laa développé pour euh, gën a yee askan wi pour gën leen laaj tamit pour gën leen ñaax kaddu yi di gën a rafet. Massayer Seck na nag gis na njëriñu bile bërëb. loolee dina mën a tax mu ñëwaat ci fi mu jaar ba yegg si fii loolu moo ko may mu mën a exposer lii nga xamante ne jamono ji askan wi la ko jagleel. peinture ak sculpture dafa nekk loo xamante ne bon dama demoon gëstu ji ko balaa ma koy gëstu nag dama commencé si li nga xamante ne mooy cuub ak batik mooy teinture. léegi bi ma foo jógee ma dem école des arts jàngi li nga xamante ne mooy peinture ak sculpture léegi bi ma ko jàngee après euh, loolu moo waral ma boole ñaar yëpp. di di ko def. biennale bu ndakaaru nag ñu ne ab xew-xew bu am solo rawatina ci ñëpp ñi yëngu ci wàllu aar bu weesoo nag ñi nga xamante ni ñu ngi ci galerie yeeg yenn musée yi moom nag nee na yi ne béréb. lu am solo la tamit. waa biennale de Dakar lu muy représenté mooy dafa nekk benn fête boo xamante ne dina tax artistes yi ñu xam lu ñuy liggéey parce que artistes yu si bëri ñu ngi làqatu di liggéey seen i ruq waaye biennale bi dina leen fésal dina fésal lu ñuy liggéey ba tax euh, ñëpp xam li ñuy liggéey la loolu moo tax biennale bi am solo si ñun. exposition Massaër Seck bii nag moo à la ko duppee loolu nag mu ne lim ci jublu mooy jàllale ay kàddu ci lépp loo xamante ne loole la askan wi di dund su ko defee ku ci nekk xam tolluwaayu lii li mel fexe tamit ut lan mooy saafara si bu ko defee dundin bi gën a mucc ayib. Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la wax ci wàllum tàggat yaram ak éliminatoire CAN 2023 mu mel ni Sénégal tey bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee euh, dina amal ñaareelu matcham mu soxal éliminatoire yooyu lée ginnaaw bi mu dooree benn tey nag Rwanda moom mooy dalal senegal fii ci Sénégal lay amee euh, ci stade euh, Abdoulaye boo foofee stade Maître Abdoulaye Wade bu jam ñaajo dañ ci ànd ak Cheikh Saad bu Diarra amul kenn ku gaañu mooy dajeeg waa Rwanda ci ñaareelu bés éliminatoire CAN 2023 yi su fekkee ni jogante yi jegaloo na trop gaynde ànd ak déggoo bu am solo. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui Diop. démb amal nañ benn séance d' entraînement euh, mu soxaloon joueurs yi nga xam ni kon bokk ju woon ci match gu njëkk gi lépp rek ngir euh, ñu nekk en forme euh, fi mu toll nag séance gu mujj gi la ñuy amal waaye di rafetlu ne amul benn blessure joueurs yëpp nag kon disponible nañu ngir rek équipe bi taxawaay nga mu war mu am ko. demain on verra la composition d' équipe nañu lool ci teewaay bi ñëpp fekke ko. ñu war a am benn état d'esprit boo xam ni dina dëgër lool ñu wane comme li ñu amaloon ci kan bi yaakaar naa ni daal mentalité boobu dina fi nekk. On va garder na xam li koy xaar Sénégal fas yéene na doxal footballam ci kanamu ku mënti dajeel. peut aussi à travers ces matchs-là euh, ak jogante yi ñuy amal mën nañ taxawal benn animation goo xam ne rek dinañu may ñu gën a am taxawaay ci euh, mondial bi moo xam ci style de jeu bi ñuy amal waaye it attaque bi ak euh, défense bi ñu préparé ko bu baax a baax. football bi ñuy amal nag bëgg nañ rek mu gën a nekk loo xam ne nii dina jaar yoon moo xam ak Bénin mbala ak Rwanda. ak goo xam ne nii moom la ñuy euh, dajal. comme comme vous vous bi jiitu ci groupe L éliminatoire CAN 2023 bi mooy laale ak waa Rwanda talaata bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci stade Maître Abdoulaye Wade mu war cee dëgëral place am jege ci lu gën a gaaw qualification am. aywa Cheikh bu Boudiara jongante la boo xam ne di ngeen ko am ngoon incha allah euh, Rwanda moom mooy dalal Sénégal fii ci euh, Sénégal ci stade euh, maître Abdoulaye Wade ñu wax ba tey tàggat yaram ak Casa Sport mi nga xam ne mooy champion du Sénégal jël na raw gàddu gi ci Ligue en bi moom nag équipe. bu sigi boobu lii mooy ñaareel yoon mu koy jël bu njëkk ba nag daanaka boobaak léegi ëpp na fukki at dañ ci ànd ak Mame Birame fukki at gannaaw sakram gu njëkk Casa Sport doon champion bu Sénégal saison 2021 2022 doon ab tiitre goo xam ne nag am na ko ci laalam ak Tëngéej FC doonoon champion mu nekk ab symbole lii ñu amal ko waaye ci njeextelu journée Ligue 1 ci ab nul kon ku nekk dugal sa benn loolu rek doy ngir kon club Ziguinchor gi am ndam li ci saison bi lii yëpp war ko waral di joueuram yi nga xam ni wane nañu xarañte ak qualité nga xam ne ni moom la ñu àndal dirigeant Casa yi nag ñoom mise rek ci continuité garder entraîneur bi nga xam ne ni mooy Ansu Diatta moom mi nga xam ni sax yoroon na équipe première ak junior yi ci saison bi ñu génn mu doon équipe boo xam ni ak effectif bi mu àndal am nañu expérience ba war ci élite bi boobu ak léegi di am dam gannaaw vingt cinq journée ci Ligue bi ci saison bi Casa Sport am rek ñaari défaite douze victoire waaye te onze match nul am lu toll ci quarante sept points ci classement bi. bu fekkee ni entraîneur bi di Ansu Jaaju moom fanu Guardiola bëgg na rekk ab football goo xam ne nag offensif bi am na ci solo lool waaye teg yaakaar ci ay joueurs yoo xam ne ni individualité ba ñu àndal lu ñuy rafetlu la ku ci mel ni Alioune Badara ak attaquant bi de Lamine Diathio Casa Sport nekk champion waaye it di des ci course gi nga xam ne nii mooy trophée bi waral coupe du Sénégal mu des rek ñaari jongante ngir kat mu am ab doublé historique aywa yegsi nañu ci ponk bu mujj Mame Birame Diouf muy li ci yéen kaay yaak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi fu ñu jëm ndox amu fa ubbi l'observateur nappante bay xuppante baa ngi ne kuru ci seen biir Barthélémy Dias meerum Ndakaaru bokk ci Yewwi Askan Wi l'observateur ne nañu nekkul ci réew mi waaye fa mu nekk dégg nañu fa mu yëkkati ay kàddu di xamle ne soxlawuñu benn njekk ñaanuñu benn faveur li wér moo di bu garab yi doon fàq suuf si di jalaa ñoo sax du tee coalition Yewwi Askan Wi dañu bokk ci élection législative woote suba ci àllarba ji Barthélémy Dias na ñi ngi ciy woo ngir ñu dajee dajaloo lànk kandaare seen liste proportionnelle bi ñu bëgg génnee ci élection législative yi maire Géejawaay ba woon di Aliou jël ci journal bi mi ngi woo jeunesse républicaine bi ngir ñu génn taxaw jàmmaar la ak opposition bi Aliou nee na du toog di seetaan opposition bi di jaxasi réew mi njiital Africa Jom Center di Alioune di yëglu ci xët mu njëkk l'Observateur nee na li amoon ci réew mi ci weeru mars ba ñu koy waxtaane ak di askan te seen liste proportionnelle bi ñu invalidé ko laaj bi l'observateur xëy di laaj moo di ndax photo Ousmane Sonko mooy nekk ci liste yi am déet Sud Quotidien xëy xaatigoon ci ne Sonko ak waa yeewi askan wi génnee nañu leen ci wotey député yi seen liste nationale bi direction générale des élections invalidé woon conseil constitutionnel dëggal na ko conseil constitutionnel mi ko def journal La Tribune mi ngi xëy di laaj ndax waree su ko fee jëlee taal conseil opposition bi ci élection législative yi xàmmee séwu ko ak coup d'état ci démocratie Sénégal waa mouvement Y di xam ne conseil constitutionnel ak xam ne dugal nañu réew mi ci guut ak politique goo xam ne xamuñu fan la jëm ak moom réew mi quotidien nañu ñoo ngi jëm suba ci àllarba ji àllarba xam ne lu nekk mën naa xew ci réew mi mercredi de tous les opposition bi tënku ci yeewu askan wi nee nañu dañuy manifester suba ci àllarba ji waa Benno Bokk ko yamale danañu dajale seeni ñooñ wax ak ñoom Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany yi aw yoonu waat élection législative yi li ci direct news gis moo di ñaari jur jàng yi gën sonal Macky Sall la ñu éliminé élection yi ñu jëm journal Life mi ngi ñuy xamale ku nekk ci war ne muy waa yeewi di waa Benno Bokk Yaakaar di waa gëm sa bopp ku ci nekk ci ñoom yaa ngi yàbbi ay kàddu yu mel ne xemee ndax weex Barthélémy Dias nañu ci àllarba suba fi indi fitna Souleymane Ndiaye secrétaire général bu S2D ni ñu ci journal bi fitna sax moo ci mën a ñàkk ne conseil constitutionnel dogal na li ko yoon may li war ñëpp moo di ñu ànd ci nangu ko ñu nangoo ci aw làmmiñam ba tey moom Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportières muy félicité président Macky Sall ca la mu demoon ci Russie la mu fa doon lijjanti ak la mu fa jële ñu jël soleil national pèlerinage marial bu Popenguine bi jeex démb ci la xëy tey bi ci réew mi ñàkk wax dëgg gi ci réew mi bi nee nañu jàngu bi ci ñuy jottali kàddu yu monseigneur Benjamin Ndiaye kàddu yu monseigneur Martin Boucar l'observateur nañu ci 134e pèlerinage marial bu Popenguine jàngu bi féddaliwaat na fa taxawaay bi mu am ci kontar ak ngóor jigéen ci Sénégal Sénégal ak Rwanda stade yéen kaay nañu tey ji la ñuy football mu di max qualification coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 yéen kaay bi nañu ginnaaw bi gayndee Sénégal yi wullee waa benn keroog samedi wulli yu metti ñetti bal ci benn ñoom gaynde 18 heures jotee maanaam 6 heures ci ngoon fa ñu ko footballé di ci stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo direct ci news nee nañu stade ba tàmbali naa yàqu xaat pelouse baa ngay cuqatiku turbine yëpp ba ku fa toog boo jugee sa yére yàqu problème lumière ñëw dooleeku ci gazon bu stade Abdoulaye Wade ba ca jam ñaajo bi tàmbale yàqu source ab scandale la ko jàppe ba di ñu leeralal li ko waral grand bal 2022 gi di waajal ca Paris la France l'observateur xëy na ko ci xëtamu njëkk fukki fan ak juróom staff bu Youssou Ndour wàllum kaaraange di sécurité l'observateur nee nañu mooy li gën a fës ci réunion ba jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye moom la ñu àndaloon ci yéen kaay ak la ñu xëyee ñu koy jaajëfal bu baax jaajëfal leen ci seen safo ak seen lu kóolute rédaction bi nga woon ci kàttanu yàlla dina dellusiwaat ci yeneen jataayu xibaar desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu ngi leen di ñaanal kenn dal di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel